Sénégal dañu am pouvoir temporel am pouvoir spirituel donc lan moo indi loolu tey Sénégal lan moo tax ñuy gàmm di màggal di def appel wasifa yi ñuy def xasaayid yi ñuy jàng gàmm yi am ci réew mi yëpp lan moo tax parce que yàlla dafa bind biddéew Sénégal ci leeru yonente bi saa sallam waaw léegi biddéew boobu la jël tas ko ci ay kilifa ba pare jël sirru njiitu réew def ko ci kenn donc ñii téye pouvoir spirituel ñii téye pouvoir temporel léegi nag ñu dox ba egg foo xamante ni gis nga li taxoon ñuy appel di màggal di gàmm parce que yàlla moo leen sant ñu liggéey ci leer boobu parce que leer bi day dellu siwaat ci Sénégal moo tax tey époque bi nga xamante ni ñoom El Hadj Omar ñoom Mame Limamou Laye Sëñ Touba ñoom Baye Niass kilifa diine yëpp seen période jeex na ah waaw léegi Sénégal. xaaral xaaral. Mm. moo tax man la deux mille vingt quatre si cycle lañ nekk soo gisee yàlla di wax wala asri boo bindee tour yonent bi saa salaam ñaari miim yi dafa benn cercle bu nekk foofu cercle boobu yàlla da koy taal muy tourner loolu mooy la cycle de la vie soo gisee ñuy wax ay waxu yonent xutbu bu zamaan ay waliyu mais mais nga ne ñoom ñoom. waaw loolu soo gisee sànq ma doon wax jeex na. soo gisee sànq ma doon wax ne j'avais besoin d'un tableau. Mhm. parce que avant ñoom ñuy wàcc am na ñeneen ñoo xamante ne ñoom la yàlla yónni woon soo demee Màkka tey Ibn Abdallah moo fa tëdd. Mhm. bi mu génnee àdduna leeru rasul dafa génn si moom bi mu génnee ci moom mais yàlla dafa ko sànniwaat ci kaw suuf rof ko ci ay nit. moo tax ñuy dox ba mu yàgg ñu ne yonent amatul après yonent nag ay xut bu ñooy am donc leer boobu bi mu ko roofee moo tax boo gisee ñoom bàyyi ña si ni ñuy bindee ñoom ñëpp nga xam ne ñi am na cër bu ñu am ci yàlla am ko ci bi sa asala léegi nag ñoom dañ doon liggéey parce que soo gis kenn ci ñoom muy xëccu nguur ñoom pouvoir spirituel la jàmm moo tax ma la dañu doon liggéey ci leer boobu léegi leer boobu dafa dox nag tey ba egsi foo xamante ne day dajale temporel ak spirituel ci période boobu lañ toll. non da nga ne seen période jeex na. seen période jeex na mooy mooy mooy lan parce que Sénégal mag ñu fi xam. Mhm. ñu dugal fi diine. Mhm. ci ñooñu la ñuy référencé wu ba ah. tey. Mhm. mu di Seydou Nourou Tall mu di Maam li Laay mu di Seydi Hadji Malick euh, mu di euh, Cheikh Ahmadou Ahmadou Bamba. mu di euh, Baye Niass ñooñu noonu dañ am aujourd'hui à Touba ce sont les c'est le règne des petits-fils mm. mais terewul la référence la principale référence c'est toujours Cheikh Ahmadou Bamba mm. donc je ne comprends pas booy wax ne seen période dafa jeex waaw boo demee si bindu Sëñ Touba nga dem si bindu maam Alaaji Maalik li may wax nii ñoom bind nañ ko ñoom ñoo ñaanu nañ yàlla na ko bis bu ñu demee ba Sénégal jaxasoo yàlla na yàlla indi ñoo xamante ni mais ñooy tegaat diine bi si yoon tey boo xoolee alxuraan quatre-vingt pour cent ni ñu koy fire dafa erroné. ah waaw alxuraan. ni ñu koy firé dafa erroné quatre-vingt pour cent parce que alxuraan dafa mat tey bu ñuy wax yéefar mais yéefar amul. Abu Lahab li ñuy wax ci moom Abu Lahab mission la am comme yonent bi sallallahu ni mu amee mission. moo tax am na fu muy wax ci alxuraan almaalu wal banuuna zinatal xayaata dunya mu ne li ngay gis ni yëpp maquette la rek maquillage la après mu ne wal baaqiyaatu saalihaatu bu ñu julee waxoon dañuy wax baaqiyaatu saalihaatu gis nga baaraam yi dañuy defee baaqiyaatu saalihaatu boo summee baaraam yi yàpp bi leer bi ngay gis bu boobaa ngay xam dëgg-dëgg lan la yàlla di wax tabbat yadaa abii lahabin la moo tax bu ñuy julli ñuy kàbbar lan moo tax loolu bu seen période jeexee ñooñu noonu loolu laay wax dañoo am temporalité am spiritualité. léegi temporalité boobu ak spiritualité yàlla da koy boole jox ko benn nit. loolu moo tax fi ñu toll nii mu nekk phase bu compliquée fii ak 2024. mais kan la yàlla jox loolu. kan la yàlla jox loolu. waaw ah, dinañ ko gis dina taxaw tey ñëpp ñi nga xamante ne. <laughs> mais Dieye ma ma suis pas d'accord avec lui parce que jusqu'à présent il n'a pas encore apporté. Mm-hmm. les vrais éléments non, de la de ne, parce avant il faut que wax bi mu mu mu mu mu leer am na fu muy wax spiritualité temporalité boobu boo demee ci alxuraan defe naa suratul Zaariyaat fi yàlla di wax naa wa min kulli shay'in xalaqnaa zawjayn la'allakum tazakkaruun mais ba tey quand vous dites par exemple les les les érudits religieux du Sénégal bon présentement ni seen cycle jeex na te man sama xel mi ba léegi mu ngi dem di ngi xalam seen bind yoo xamante ne bi pratiquement euh, avec leur pouvoir euh, comme ni ñu ko waxee entre guillemets parce que pouvoir yàlla moo ko am. avec leur pouvoir kii nu ñu koy waxee spirituel. j'ai l'impression que jusqu'à présent on vivifie on l'entretient on le perpétue. Hmm. c'est en porte-à-faux avec avec ce que vous venez de moo tax ma ñëwee dama doon laaj tableau. Ah. su ma amoon tableau. Hmm. dama lay tracer jëmm doomu aadama. Hmm. nga gis ko parce que jëmmu aadama soo ko doomu aadama soo ko tegee arrahmaani ngay gis. donc arrahmaani donc da ngay xool étapes yi nga xamante ni yëpp bu yàlla ne alkaafiruun mm. alkaafiruun les mécréants la ñuy wax mm. mais foofu dañoo jub mécréant li ñuy wax mécréant ñan ñoo jub niñ ko traduire loolu laay wax nii ah niñ ko traduire voilà ne bu ñuy wax des infidèles y a pas d'infidèles en Dieu tey li tax ñuy wax sallallahu alayhi wa su ma amoon tableau dama la koy matérialiser nga gis ko li tax ñuy wax sallallahu alayhi wa les athées les chrétiens les juifs les musulmans mais ñëpp ci rasul lañ nekk moo tax am na ñoo xam ne boo leen waxee l'athéisme est l'expression la plus parfaite de l'unicité dañuy tiit parce que ñoom li ñu xam mooy ku weddi yàlla ku gëm yàlla yéefar loolu lañ lay wax alors que yàlla dafa bind li muy bind moom moo ne walaakin bind leen ci anam bu nekk. mais mais mais nit kooku nga xam ne nga ne ñooñu nga ne suñu maam yooyu. seen cycle jeex na. Mhm. léegi yàlla dafa dafa Sénégal dafa toll ci croisée des chemins mhm. euh, donc yàlla jël pouvoir spirituel jël pouvoir euh, euh, temporel def ko ci kenn nit mhm. cette personne là elle est vivante elle est connue c'est qui. mi ngi ci biir réew mi parce que damay wax. mais li nga effectivement moom mais mais kan la lan mooy profilam parce que nit bu taxawee muy wax dara loolu muy wax da ci am ay firnde tey. Touba ñu ngi may dégg Yoff ñu ngi may dégg Medina Baye ñu ngi may dégg ak yeneen këru diine Tiwaawan ñëpp ñu ngi may dégg gis nga tey kilifa diine yooyu yëpp nga xamante ne ñoo doon liggéey li may wax nii mais ñooñ ñëpp duggaat nañ ci biir réew mi juddoo ci kër yoo xamante ne santuñu si santuñu ñas sa ñu Mbàkke ak beneen sant ñoom ñëpp dekkiwaat nañ dugg ci biir réew mi te 2024 ñuy liggéey Sénégal ñooñ ci la ñuy bokk. cest dañuy dugg man damay wax ci scientificité wu yàlla loolu tax ma doon laaj tableau parce que lii effectivement boo koy wax théoriquement ni ça peut être mm. compliqué moo tax ma d' ak moom si le fait que mu ñàkk d' accord ak man. mais cette personne là nga xam ne silu boobu mu ngi ci moom euh, il est dans quoi. je veux bien que tu me dises. Euh... non mu ci réew mi dafay politique. c' est un homme qui porte un projet politique c' est un homme qui va diriger le ma bis ma amee tableau dinaa ci gën a joxe ay preuves Amadou mais mais man man daal